maa waaw xaadim maa ngi lay fay. ginnaaw bu loolu jàllee maa ngi nuyu Sénégal yëpp comme niñ ko daan defee rek di nuyu monde entier yëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi yëpp bàyyiwuma kenn di nuyu nag fi nga xam ne nii mooy reefan bi ma dëkk maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu Bawol yëpp bàyyiwuma fenn parce que man Bawol laa am. di nuyu tamit waa Medina. di nuyu fi nga xamante ne nag fa laa déggee ngoor si dégg fa booy bi muy sa waa Sandaga yëpp ku ci mel ni Daouda Diouf maa koy nuyu bu baax. di nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk Sandaga yëpp sama gars yëpp bàyyiwuma kenn. waaw di nuyu tam di nuyu waa Presse Café fi may liggéey duma noppi di ko wax di nuyu Ahmed Yahya Aliou Thiobe maa ngi leen bu baax a baax a baax. ci kattanu yàlla daal maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn ci kattanu yàlla. Mhm. macha allah am na solo Mbaye tey dama ñëw pour ñu waxtaan ci benn koo Siteu ak Papa Sow Papa Sow sa carrière lamb si ñaar mas ngeen dajee mbapat wala ngeen wala ngeen bëri wala ngeen waaj a bëri ci arène bi. non papa mosuñu dajee mbapat mais nekkoon nañ Fass écurie Fass di entraîner yàgg fa lool ma xam ko bu baax mu doon jóge fii tamit Dakar di ñëw sama kër Réfane mhm. xam fa bu baax moom Papa Mhm. kon bokkoon bekkoon benn écurie mu écurie waaw bokkoon nañu écurie lu yàgg sax. nekk di contact di def lépp. waaw kay. Mhm. loo loo loo instant ci moom. lu ma. découvrir ci moom. waaw mooy ndaanaan la. mun na bëre trop. ku bañ defet la tamit. yor xadaru mbër lool tamit. lépp lu ñuy wax ci mbër daal mu ci moom moom Papa Sow parce que xam naa ko ci moom ndax nekkoon nañu faas dama ko xam bu baax xaw ma ko falaa falaa nii dama ko xam bu baax xam li mu mëne fooram dëggantaan tamit léppam daal xam naa ko ci waru bëre parce que ci waru bëre la ñuy wax. Mhm. mais boo ko daan contact écurie ba wala nga koy toog gis muy contact est-ce que lam naan contact ah, ci écurie bi ci contact est-ce koy gis mu koy bëri ci arène bi ci combat yi ci arène bi. waaw gis naa mu koy bëri ci arène bi gis naa mu koy bëri ci arène bi. parce que papa boo xoolee combat am yi day bëre bëre bu gaaw te bu lay am na fa bu la fa xesee yëg rek da ngay ñàkk bëri na ko ci ay combat yu bari mook Cheikh Ngiraan seetaan nga ko moo tamit euh, ki nga xamante ni mooy Baye Mandione bu muy dal ci kawam seetaan nga ko ak yeneen i combat am yeneen ak ak bi muy bëri ak booy booy sey tamit dafa am vitesse su bëre dafa am vitesse su bëre waaw bu am vitesse bu bëre même bi muy bëree ak tonnerre mooy bi nga xam ne tonnerre jànq la bi muy bëree moom tamit la mu foo wane mu ngi fa. Mhm. mook tonnerre. Mhm. mais li ko gis mu koy bëri ci ay technique foofu est-ce que technique daan gis euh, mu koy bëri foofu ci bu doon contact est-ce yaa ngi gis mu génn technique yooyu wala am na lu am lu des. mais seetaanal kombaam ak nees astafurlaa kombaam ak euh, kii ki moo wax léegi tonnerre. Mhm. foofu amul ruq bu sedd patam patam la patam patam fel weer ndombo weer na ko daan na ko daanu ko ñu ngay jargandalu paqueté na ñaari tànk yi bëtt na ko ceinture na ko tuur na ko daan na ko daanu ko xam nga tax ma laaj la loolu exemple mhm. damay dégg ñu ne mbër bi li muy bëree contact mhm. bëri li muy bëree contact bëri ko mhm. arène non papa li muy bëree contact loolu lay bëri arène papa yéexul noonu la mel nature bërëm yéexul daal moom du bàyyi nga bëri ci kawam moom mooy bëri sa kaw côté xeex loolu loolu la jànge bëre quoi moo tax. loolu la jànge bëre quoi moo tax. noonu la jànge bëre Siteu nag loo xam loo gis si moom. waaw Siteu gis naa ne tamit moom mun na bëre ba pare am na taay te yokk na poids tamit gis naa ne loolu mu ngi ci moom moom ki nga xam ne mooy sita am na taay taayu mbër aussi mun na bëre telewul te it neewul doole moom sita Mhm, loolu gis naa ko ci moom. ñu naan boobu seen bëre loo ci gis ku a bëre. Oh, papa ak Siteu bokkuñu nu ñuy bëree Siteu tànk jàppal sa ngemb ngeen jàppante mu yéeg la kot wala mu dugal la loxo yaa ngi dégg tooj la nga jóg mu kal la kalu biti loolu da koy def mais ci kaw jàppanteeg yow la koy def Papa Sow nag day ñëw tari xaw ma xam nga tari wala déet maanaam. Euh, maanaam saa yu dalee sa saa yu arbitre sifflé bu dalee sa kaw day tari. day maanaam day tari maanaam action bu mu bu ko rëcc day def beneen action si action lay def. Mm, enchaînement lay def waaw moom moo tax man la day tari. kon Siteu bëri jàppante la man. waaw Siteu bëri jàppante la man. bëri jàppante la man. mais papa bëri ci yaram la man. maam moom soxlawul jàpp ngeen te papa. papa jàpp ngeen moom bëre ci yaram la woon debb col laal li fàqat dar ñaari tànk wala jël benn tànk wala téye ci sa avant bras bi coup de la comprendre nga wala mu def demi flexion bëtt la moom yooyu lay bëre moom si moom papa Sow yooyu lay bëre hmm, te mu mën na ko lool nag. Hmm. tamit papa Sow yor du handicapé si te tuuti. waaw waaw waaw waaw waaw mën na handicapé si te parce que si te dafa njool. Euh, te papa euh, du may Siteu mu mu nekk en l'aise ci combat bi. du ko may mu nekk en l'aise. du ko may mu nekk en l'aise parce que papa Siteu bu fekkee dafa nekk en l'aise pour papa daan ko day xaw a jafe mais bu ko mayul en l'aise nga xam ne du ko may jàmm bëree pëtëm pëtëm pëtëm bu boobaa Siteu day am problème lool ci combat bi. mais mais li nga wax ni dama gis Zarko bëri ko si te te te. Zarko ak Papa Sow bokkuñu jéggañoowuñu sax kee dafa nàmp bëre daf daf tee juddu euh, mooy. Papa dafa juddu ci bëre. dafa juddoo faas. màgge faas. jànge bëre faas. ba mën ko lool. comment maanaam dóor mu mu munu cee am. parce que dama gis Siteu day xeex Papa Sow day xeex. waaw mais xam nga sita day xeex d'accord mais Siteu day fausse garde la comprendre nga mais loxo bi nga xamante ne moom la jiital du ci xeex xam nga garde normal day teg gauche di xeex droite mais Siteu bu tegee droite am moom loxo bi ci ginnaaw lay xeexe te boobu noonu dafay de maanaam ci digganteem ak Papa du méngoo sax. mu koy xàcc pour jëm ci Papa ndax Papa am na garde te am na gaawaay boo xamante nii moom kuwam boobu muy sànni noonu bu ko sànnee bu luppee Papa dina ko yëg fu sori moom moom sita Papa Sow da koy yëg fu sori te bu boobaa day naqaree lijjanti làmb ji mais nag Papa tamit bu bu bu bu ko Siteu teelee gis ci combat bi maanaam bu ko teelee gis ñu ne runkum ñu ne jàppante nañu ay ngemb ku ne jàpp na. pour papa daan ko tamit day jafe lool. Mhm. pour jafe bu ñu jàppantee bu ñu jàppantee ngeen pour papa daan sita day jafe lool mais bu fekkee dañoo ñëw ci combat bi vitesse am nga xam ne dañ ñëw combat bi alors ñu ngay bëre continue jaxasoo nañu ñu ngay bëre ñu ngay contact ñu ngay contact ñu ngay bëre bëre daan na koog daanagu ko bu boobaa day am sita day am problème lool. Mhm. maa la wax lii kay. maanaam bu bu nee deng Siteu lay arrangé waaye saa yu amee ndoxtu pëtëx pëtëx pëtëx Papa Sow lay arrangé. Mhm. tey ñu naa ku ci war a indi bëri ak ku ci war indi xeex. waaw noo xam nga euh, papa moom papa moom day du day ñëw day attaqué mhm. papa moom ku ko xam-xam ne day attaqué te papa warul xaar combat bi di yàgg. warul xaal combat bi di yàgg wala ñu naan atte nañ leen bëriwaat nañu atte nañ leen jàppante nañu bàyyiwante nañu atte nañ leen papa warul nangu loolu moom moom dafa war a ñëw rek tari comprendre nga Siteu nag dafa am ligne boo xamante ne ni ligne am la bu mu nangu mukk Papa Sow si fa parce que su dof dof loo ba Papa Sow si fa dina am lu ko metti lool moom Siteu mooy njool la warul sëgg parce que gis naa ay combat yoo xam ne nii buy bëree day yootu mbër bi moom si te di sëgg te li mu koy def ndaama dafa bari mais ndaama yooyu noonu bokkuñu ak Papa Sow parce que Papa dafa mën a bëre telewul te dafa gaaw te itam dafa nekk mbër boo nga xam ne saa yu la yéegee fen fi day képp sa triceps sa avant bras bi lay képp bu la bëttee day képp sa avant bras bi songle la yokku la tuuti xandaalu ak yow dooto am pied d'appui benn dootoo ko am noonu dalay tuur bu la tuuree nag moo xam dangay daanu moo xam dañ naan daan na ko daanu ko mais dalay tuur te ci bu la tuuree du la bàyyi day continuer action. Mhm. maanaam ñu xaar ban combat bu neex lañ lañ lañ lañ nar a gis. le 5 décembre incha allah. combat bi mu dina neex lool. muy Siteu ak euh, papa dina neex lool. mais en tout cas daal ki nga xamante ne mooy sita na def très attention ci gaawaayu papa xaw ma nag mu ngi ciy liggéey xaw ma liggéeyu ci ndax papa nekk na mbër bi nga xamante ne saa yu dalee sa kaw te nekk en les dal sa kaw da lay bëreloo. te it pour nga gis ko ci biir bërëb yi day jafe parce que dafa gaaw action bu bu bu tegg bu baaxul mu teg na beneen moom mënul bëre bu diib papa mënul bëre bu diib combat am yëpp boo xoolee amul benn combat bu diib amul te it te it waa Siteu moom dafa war a diibal kombaa bi dafa war a ñëw fermer porte yi yëpp ne teg contrôler ko bu baax parce que su contrôlé wul si su contrôlé wul papa bu baax papa dina ko yëg foo xamante ni du ko neex comprendre nga da ko yëg foo xam ne kon du ko neex parce que nekk na mbër bi nga xamante nii dafa dafa dafa rapide trop quoi moom si ta dafa gaaw trop moom moom papa Sow papa dafa gaaw di trop te ci ki mu gën a gaaw nag mooy njool bu af xaw ma xam nga looloo mu déet maanaam sa poqtaan sa poqtaan bu ko gisee rek ñëw na bu gisee sa poqtaan rek ñëw na waaw mooy njool bu sori kaw rek te te buy bëre du fermi du fermi boppam du denc boppam loolu la rek boo dul denc sa bopp nekk njool njool da nga war di denc sa bopp mais njoor waru waroo nekk njool ba pare di léewtoo di di di di tàllal say loxo wala doo toog ci say tànk danga nga war di toog ci say tànk di dam sa léewtoo comme la de Guiers 2 ni muy def pour mbër yëg ko fu sori dafa jafe lool moom la dëgër boo xoolee leew da koy dagg ba pare day ràcc tàng yi toog ci saa yooyu ñëw da lay gis mais am na njool yoo xamante ne dañuy ràcc du ñu ràcc ba pare dañ ni ñuy leewtooyee baaxul. Mhm. am na solo Mbaye loolu kàddu mujj bi ñamale ko foofu. dañuy waxtaan ci yeneen combat yu ñëw parce que Tapha Tine boo ñaaw Tapha Tine euh, yëkk Tapha kii euh, booy Niang soreetul incha allah. waaw boobu soreetul mi sama combat rakk bi muy tafaatin di ko ñaanal ndam rek ci kattanu yàlla mu am ndam maa ngi koy ñaanal bu baax mu am ndam. incha allah di di di di nuyu tamit sama benn euh, xarit muy Ndey Mbay Ndey Mbay bi nekk Sandaga te si te Fadia nekk sama xarit nekk sama lépp mën naa ne sama combat yi ma amoon yépp ni mu ci doon jàppe dafa ëpp. mais xam nga yàlla day dogal nag après daa tukki woon nag mais ñibbisi na léegi nag am na jëkkër comprendre nga mais ku baax la ku xam làmb la xam mbër tamit doon ma jàppale lool moom nday mbay doon ma jàppale trop mais nag ñibbisi na ñu ngi waxtaan lu bëri maak moom ñu gisante ñu ngi waxtaan maa ngi koy nuyu di nuyu yaayam Khady tamit maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax di ko wax ne nday mbay yaag si jëkkër ñu yàlla jàppale leen ci kattanu yàlla ngeen am njaboot gu barkeel ci kattanu yàlla ak mbaaxam di nuyu Sénégal yëpp daal jaajëf di la jaajëfal di jaajëfal ñëpp ñu noon partout dans le monde France États-Unis waa Espagne Maroc Gambie Mauritanie partout dans le monde di jaajëfal ñëpp di leen jox rendez-vous ba beneen yoon incha allah beneen invité toujours ci waxtaanu làmb